seen télévision sunu média di ci nuyu sunu jigéen soxna nday faylay laay di ko jox wàccuwaayam tey jaare foofu tamit di siyaara kilifa diine yi ci biir réew mi yëpp ak kilifa aada yi mu ñëw yéen ci émission boo xam ni ñu ci fas yéene waxtaan ak yéen loo xam ni ay njariñ rek lay jénne jëme ci mbokki jullit yi ngir ñu mën koo jariñoo mu mel ni kii def ak yéen émission bi mooy Serigne Mame Balla Mbacke muy nuyu ñëpp di leen ziara tey ziara waale ki nga xam ni moo nekk ci machine bi nga xam ni bu wax ji yemoo rek ba ngeen mën koo dégg ci moom la di ko ñaanal sunu borom gën koo taxawal dëgëral ko ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal mu man ko ca nam ko gën a bëggee kon tey mu mel ni dañ leen a indil lenn ci meññat yi nga xamante ni wala lenn ci ñam yi nga xamante ni làmboo na ay njariñ te ñu mën ci am ay takk yu dëgër ci yoo xam dañ koy jële ci alquran ak lenn ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ca moo di li naan lem njariñ yan la làmbool du nekk ci biir ta xëy na mu mën a saafara yu baree bare te doomu aadama yu bari xamuñu ko ñu jug ngir feeñal lenn ci njariñ yooya ngir nit ñi xam ne bari waana loo xam ne ñoo ngi koy romb mu yomb ci ñoom te bari lu muy saafara waaye miin gi ak ñàkk a gëstu gi tax na duñu xam njariñ ya te duñ ca gëstu nam waree moom lem ay njariñam bokk na ci li muy saafara bari na lool ci wàllum dana jox nit kàttan tey dana saafara feebaru metitu biir loolu danañ ci indi ay leeral ci kanam incha allah waaye li lay wax ne am na njariñ rek sunu boroom daf ko jël moom lem def ko ay sekkar yu bari mu nekk ci biiram nga xam ni boo xoolee ci biir alxuraan da ngay gis ci suñu borom day wax ni waaw xaarabuka ilan naxli ani taqidi min al jibaali buyutan wa min ashajari wa mimma yaarisuuna tumma kuli min kuli tamaraati fasluki subula rabbika yaxriju sululam min butuniha sharabum muxtalifun alwaanuhu fihi shifa linnaas inna fi dalika al ayati li qawmin yatafakkarun ne moom boo xoolee moom lem mi ngi jugee ci yàmm nga xam ni dañuy wax ni ci dem àll yi wala ci nefere yamb ci lay génnee ñu liggéey ko ba mu génnee noonu mu mën a génnee waaye nga xam ni ndox moom muy génne muy lem googu suñ boroom dafa def ci moom ay sekkere yu baree baree bari mu mën a saafara lu baree bari kon sunu borom bindul dara muy loo xam daf koo bind rek noonu te amul njariñ lu ci ne ci gëstu doomu aadama lay ajuwaat kon loolu ab soññe la ci ñu gën a gëstu ci mbindeef sunu borom yi ak meññatam yi ndax looloo xam na ko su boppam ni wamaa xala waate wala dama wamaa baynahuma baatilan bindut bindut li nga xam ne moo nekk ci diggante asamaan suuf mu di ay mm, mooy mu di neen koo xam daf ko bind noonu waaye loola nag lu mu ca teg mooy daalika xamdul ladina kafaru mooy mooy loolu nag mooy njottul ñi nga xam dañoo weddi mooy dañoo jàpp yëfari ñoom dañoo jàpp suñu borom li mu bind lépp daf koo bind mu di euh, doo ko bind sànni noonu waaye suñu borom li mu bind rek ay njëriñ nga ci dafay aju ci kaw gëstu jaam bi donc lay wane ni tamit dafay faj biir buy metti dañ koy jëlee ci wax yoonte bi sallallahu alayhi wa ndax am na waaye ju ñëw ci yonte bi sallallahu alayhi wa wax ko ne ko man de sama mbokk biiram dafay metti yonente bi ni ko demal nga màndal ko mooy nga demal nga jox ko mu naan lem bi mu ko joxee lem ñëwaat ci yonente bi ni ko jox naa ko de waaye teewut mu ngay metti mu ngay daw mu ne ko joxaat ko lem ba mu dikkee ci yoone ñetteel ba mu ne ko jox naa ko waaye mu ne ko sadaqallaahu al-asiim wa kasaba batnu aqika mu ko sunu borom dëggal na ay waxam waaye sa biiru mbokk moom moo weddi daañu ko demal nga joxaat ko lem bu mu ko ko joxee ca sansa dafa set wi ci daal di wér kon loolu dalil la ci ni lem ay njariñam bokk na ci dafay faj biir buy metti xam naa kon mel na ni waxtaan wi dana xaw a gàtt waaye dañuy yamandiku foofu bu ko defee bu baneen yoonee ci biir émission bi ñu indi leen baneen njariñ ci lenn ci mbindeefu sunu borom yi wala lenn ci sekkere yi nga xam ne dafay aju ci alquran walla lenn ci meññat yi nga xam ne dañuy nekk di ko jëfandikoo te xamul njariñ mu làmbul kon bu ko defee dee leen ñu xaar ci biir télévision sunu média bu ko defee ñu di fa dajee di fas yéene jariñante ci wajhillaahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam kon ginnaaw bi loolu jàllee ñu ngi nuy ñëpp di leen ziara tey jéggalu di ñaan sunu boroom defal nu dëgg ak dégg ak topp bu ko defee lépp lu ci jub ngeen xam ni ndimbalu sunu boroom waaye lu ci dëgg ngeen xam ni matadik doomu aadama la wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin